xam-xam yu jëkk ya imaamu Maalik ak ku mel ne moom su weeru koor mu san dugg dañuy bàyyi mboolem gëstu yi daan gëstu ci xadiis ci jàngale ko mu ngi noonu féetewoo téereb yàlla bi di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg loolee kon daje di nendum yàlla di ko jàng gëneel bu rëy la yàlla yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko boole ñoo ña koy déglu fi mën a nekk te fayul fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom kon insha allah bu Cheikh Ousmane Faye jërëjëf suñu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa taala mu ne qaala isa bnu maryam noonu la waxe isa doomi maryama ja allahuma rabbana e yàlla suñu boroom anzil alayna maidatan min assama wàcceel ci ñun taabal jubawoo ci kaw asamaan maida mooy taabal bu am ñam ca kaw takunu lana iidan li awwalina wa axirina mu nekk ak feet gu ñuy feetu ñeel ñi jëkk ci ñun ak ñi mujj ci ñun wa aayatan min muy kaawteef bu bawoo ci yow warzuqna yàgg na nga doon it dañuy wërsëgal mi ngi noonu wa anta xayru raziqin te yàlla yaa gën ci nii wërsëgal qaala allahu inni munazziluha alaykum suñu borom mu ne maa ngi nekk di ko wàcc ci yéen waaye fa man yakfur baad minkum képp ko weddi gannaaw loolu ci yéen fa inni uazibuhu azaba ku mel noonu day danaa ko mbugal mbugal moo xam ne laa uazibuhu ahada min alaalamin du ma ko mbugal kenn ci mboolem bi ndaa fan yi mi ngi noonu bokk jullit bi mu fi mujjee démb gis nañu Isa laddem yooyu susoon ci moom ñëw nañ ne ko ndax doo ñu mën a wàccee taabal joo xam ne day fees ak ñam su ko defee ñun dañu caa bëgg a lekk loolu it doon loo xam ne nii dañ koy fàttaliku bis bu ñëwee ñi def ko lii di bi si fekk isa jàngi na leen ragal leen yàlla waaye ñu insiste ci ne isa ñaanal ñu yàlla naam donte ne ni ñoom bi ñuy wax isa alayhi salaatu wassalaam waxuñu ko yonent yàlla bi lañ doon sax mooy yaa isa bi ñu koy wax ñaan yàlla it waxuñu ñaanal ñu suñu boroom dañ ne ko ñaanal sa boroom loolu lépp mooy ñàkk teggin gi yahud yi nekk woon léegi nag isa na mariam mi ngi ñaan suñu boroom mu ne isa ne allahuma rabbana allahuma ay yow yàlla mi ñuy jaamu rabbana yow mi nga xam ne yaay suñu boroom ñun ñëpp gis ngeen te loolu nga la waay di ko ubbil say ñaan allahuma rabbana nangam nangam اللهم إن يلا يوم نيجا ربنا يوم يسني برام من نور أم أمنا إمام بوحي سمي الله لمن حمده من قوى ربنا ولك الحمد كم من قوى اللهم ربنا لك الحمد ñaar yëpp wér na loolu mi ngi noonu ay yàlla yow mi nga xam ne yaay suñu boroom wàccee ci ñun lii di taabal bu bawoo kaw asamaan ngir mu nekk loo xam ne dañ koy fàttali ko di ko feet te ma ko it mooy lay dellu si dañu xam ne bu dee ne ñun diini islaam ñaari jiit lañ am benn jiit gi mooy suñu wooree ba koor ga jeex loolu yi ñu koy feetu ngir sante ko yàlla ñaareelu iid gi buñ defee la gën a màgg ci aj ba jóge ne arafaat ñëw ci bisu tabaski ba wala kaaba ga la gën a màgg jeex na suñu borom may ñu ko feet amul ku ko ñetteel feetu gàmmu yonent bi bàyyi ko fi woon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax feetu isra wal mi'raj yonent bi bàyyi ko fi woon beneen feet bu dul iid korite iid tabaski islam xamu ko woon bi yonent bi dee baax loolu ñu bàyyi ko xel bu baax suñu borom subhanahu wa taala ni yàlla defal loolu isa mu ne yàlla defal loolu mu nekk fet ñeel ñu te nga wërsëgal ñu yaa gën ci ñiy wërsëgal te suñu borom yàlla jalla wa ala huwa xayru raziqin moom rek moo attan wërsëgi ay jaamam da ngay gis ne li nga xamee ne nii moom mooy li nga xamee ne nii moom mooy lii dox ci jéeri yi lii naw ci jaww yi yi nekk ci baleen yi lépp suñu borom yàlla moo gàdd seen wërsëg loolu it nga la way dee ko naan wërsëg yow tamit xam ni moom dong mu lay wërsëgal te boo nekkee ci wërsëgam ba pare nga sant yàlla ñu ngi néew nga sant yàlla mi la ko wërsëgal bi loolu amee suñu borom na ko am isa maa ngi wàcce taabal ba ci yéen de waaye képp ko wét danaa ko mbugal mbugal moo xam ne du ma ko mbugal kenn na ci samay jaam loolee mbokk bi nga xam ne ni am na borom xam-xam yu wóote nañu am nañu ni taabal bi yàlla wàcce na ko ba gaa yi lekk ci ba pare bañ lekkee ba pare wala seenu kéeféer ak seenu caay-caay ñoom la yàlla soppi woon ay mbaam xuux ñu ne moom la borom bi di wax naan wa jaali minhum alqiradata wal xanaasir ne yàlla soppi woon ay gorof mooy ñi jiit yi woon dewe ci samedi ba doon napp bi su samedi ñi yàlla soppi ay mbaam xuux mooy ñi fekke woon ba taabal bi di wàcc ba pare ñu weddi leen di yàlla soppi mbaam xuux donc ne nii da ngay gis lu bari ci mufassiru lay dañ ne yàlla bi mu tëkkoo tëkkoo bii yonent yàlla Isa da ko danaa ko wàcc waaye ku weddi ci ñoom danaa ko teg mbugal bu matul teg kenn ñu ne Isa dana ko yàlla bu ko wàcc te lu mel noonu amoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka kilifa yi dajaloo la ñëw ci moom da ko boo bëggee ñu gëm ne yàlla la yónni lii nga xam ne mooy montagne bi di safa tiim kaaba gi dañ koy soppali or boo ko soppalee or rek ñu xam ne yàlla la yónni suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne yonent yàlla bi soo bëggee ma soppali la ko or waaye ku ku ku witti ci ñoom day danaa ko mbugal mbugal bu ma dul mbugal kenn yonent yàlla bi ne ko ay yàlla bàyyi maag ñoom rek bàyyi maag ñoom te mooy bul def loolu te fële alhamdu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mën nga wax ne mbokk waa Makka borom tene ba muy woote nekkoon nañ mille personnes li wóor mooy neuf cent et quatre yëpp ci lislaam lañu dee seeni doom moom waxi noppi loolu kon moo tax yonent bi alayhi salaam daa dul woon kaw niif boobu loolu mbokk da ngay gis ne daanaka moo xaw a gën a logique ndax la nga xamee ne ni mooy lii di taabal bi ànd ak ñam jóge ko asamaan bi gis ñu ko ci téere injiil yi donc ne ñoom dugal na ca la leen neex yokk ca la leen neex amma dama ko waxe woon démb ci sahabatul kiram musuñu woon laaj yonent bi alei salaam kawteef waaye yàlla jaarale na ci moom kawteef yu raw yii waa bani israel di laaj yonent bi salaa sallam gis na keroog rasatu tabu suñu borom yàlla di nett bi min min baadi ma kaada yaziigu qulubu fariqin minhum demoon na mbir ya taroon na metti na ba bu dul woon ak yàlla leen jàppale lenn ci saxaaba yi sax xawoon nañ génn ñu saatul wasra demoon nañ ba seen ndox jeex complètement ñu jaaxle loolu ñu xëy suba gis benn jigéen ñu ngi war ci benn mbaamam yor benn mbuusu ndox saxaaba yi na ko waaw yow ndox mi foo ko jëlee mu ne ko ah fa ma ko jëlee de heure bii démb laa fa jëlee gis ngeen masalan yéen jëli soon huit heures ci suba mu ne démb huit heures ci suba laa jóge foofu te yow ba leen Dakaaru déggul loolu ak na seen waa kër ak sama waa kër yem rek man da ci xuloo laa dëkk jàpp kese fëgg ne bu ne xaaraaraaraaraar siwam ndox wala lu gëm nga jàpp ko sangu moom waxi na dugg ci chasse xaaraaraaraaraaraar parce que xam nga lu ndox waaye xoolal soxla si waru daamam nee na fa mu jógee vingt quatre heures ngi ni muy dox cax ca yëgagul fu mu jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di ne saxaba yi nañ ko indil benn këll biñ ko indilee benn këll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw daa di bëtt mbuus bi muy sotteeku ci këll bi mu jël ay baaraamam teg ci biir këll bi këll bi mel na ni robinet yuy jaay di sànni saxaba yi ñëw indi seeni mbuus di root di root di root ñi bëgg a sangu sangu ñi bëgg a denc ndox denc ba ñépp sa ndox da daje yonent bi tekki ay loxoom mbuusu soxna si mel na meloon gis ngeen loolu yi bokk da ngay gis kaw jëkk ci kaw def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci wàllu lekk gi keroog xaswatu ahzab kenn ci saxaaba yi mu jëmul abu talha la rocceeku ne dem ci kër soxnaam ne ko ay suñu yonent yàlla bi dee ni ma ko gisee ak xiif tar na lool sallallahu alayhi wa sallam daana def ba jël xeer takk ci biiram léegi damaa bëggoon lu fi nekk rek nañ ko defar ñu daal di kaw rey benn buy bu nekkoon foofu soxla si defaral ko benn genre ay cere yooyu ñu teg ko bi mu ñoree mu yónni xale wax ko ko mu dee yonent bi alei salaam naan ne ko dañoo bëggoon nga ñëw kër ga am loo fa reere mu ne ko ah mu ne waaw explique ko ne ko sama soxna ma nga ko teg mu ne ko waaw nee ko bu ma tekki indi bi mooy fi ñuy tayee cere beeg yooyu bu mu ko tekkee dafa bàyyi loolu yonent bi alei salaatu wasalaam ne saxaaba yi kaay leen ñu dem waa ji ne musiba am na de daw jiitu bi rek daw jiitu yonent bi alei salaam ne ko ah musiba am na de mu ne ko lu xew na ko yonent bi ne ma nga ànd ak mbooloo yëpp ne la leen ñëw tey bi ñu ñëwee aw su salaa sallam daa di ne saxaaba yi ñu ñu toog mu ne nañ ko dugaloon fukki nit ñu dugaloon ko fukki nit mu jël bool dem ci fii lekk ji nekk di tibb di tibb ba bool bi fees mu jël ci taal bi sotti na gaa yi dugg si gaa yi dugg si lekk génn dem ñu ne leen dugal geneen yonent bi dem di tibb di tibb ba ay téeméeri doomu aadama lekk ci ba ñëpp ñëpp ñu suur bi yonent bi alei salatu wasalaam demee cin bi mel na meloon ñu nga noonu wala ba dañuy saxal buxaar dañ ko fa fekk loolu ku mel ni boo ñu xoolee ba mel ne Abu Hurayra ci am ñu ne damaa ñëw kër yonent bi alei salaam nee na maa ngi ànd ak yonent bi maa ngi xiif nee na bi ñu ñëwee ci kër gi yonent bi alei salaam benn këll meew la fekk ñu tegal ko fa pour mu reeroo nee na bu ko yonent bi ubbee ah daal dina ma Abu Hurayra dama war ma asaabu sofa comme mooy gars yi gars yi nga xam ne di jàkk jël ñu daal amuñu fu ñu jëm dee dafa rek bisimilah jàpp waaye fu ko tax ma naan ko rek yaa ngi bu la ko defee wóor ma gars yi nee na gars yi ñëw nekkoon mbooloo mu ne jox leen ñu naan benn waa ji njëkk a dox mu naan naan naan wax fi mu xaw a kii noonu mu bëgg a teg yéen bi ne ko naan la mu naan da ko naan la mu ñaar suur naa de ñu ne nañ jox ko ci des ki ci des naan nañ jox ko ci des ci des naan bay gis ci Abi Hurayra yonent bi ne ko naan yéen nag man naan ngeen naan ngeen naan bu mu naan yéen ci ma daan naanam ba muy sama faare nga ma dugg la ay yàlla yow kër boo ko dugal de yonent bi nee na daal mu daal di rey jël desu ci këll bi naan ko sallallahu alayhi wa sallam mbokk kii mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla jaarale woon ci ay mooy kawteef mais sahaaba yi mosuñu ko ko laaj ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu ngëm yàlla yàlla moo koy jagleel ku ko neex fekke ay kawteef du tax a gëm looloo tax ba yow deel ñaan yàlla ngëm foo mën a toll di ko ñaanal sa njaboot allahuma xabbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar rashidin yàlla yàlla defal na ko ingal cheikh ousmane
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni wa id qaala allahu ya isa bna maryam fàttalikul ba yàlla di wax ey isa doomi maryam a anta qulta linnaas ndax yow yaa waxul nit ñi ittaxizuuni wa ummiya ilahayni min dunillah jàpp leen ma maag sama yaay yeneen ñaari yàlla yu bokkul ak yàlla qaala subhaanak mu ne ko yàlla sell ñeel na la maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi xaq yellul ci man mukk may wax loo xam ne nekkul ñeel ma ci lu ma yeyoo in kuntu qultuhu faqad alimta loolu day su ma ko waxoon yow xam nga ko taalamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi yow day yaa xam ne nekk sama bakkan man na xóoma di nekk sa bakkan innaka anta al- allaamul xuyub yàlla yow day yaay di nga xam ne yaay di xam-xam bu dotale lépp loo xam ne kumpa la maa qultu lahum illa maa amartani bi waxuma leen lu dul lan ma digaloon rek an yabudu allaha rabbi wa rabbakum te mooy jaamu leen yàlla mooy suma borom di seen borom وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم nekkoon naa aji sayde ci ñoom fiyeeg maa ngi nekkoon ak ñoom falamma tawaffaytani waaye keroog ba ma faate kunta anta raqiba alayhim yow de yaa nekkoon di fuglu ci seen kaw ak leen surveiller wa anta ala kulli shay'in shahid yow nag lépp lu mu mën a doon yaay aji ko koy seede in tu'azzibuhum su dee da nga leen a bëggal fa innahum ibaadu mi ngi noonu say jaam lañu wa in taxfir lahum soo leen jéggalee nag fa innaka anta al azizul hakim yow yaay nga nopp ci sa kattan gi يوم الحكيم جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم suñu borom ni lii de mooy bis boo xam ne dana jëriñ ñu dëgg woon seen dëgg ba lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dana leen ñeel àjjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex xaalidina fiha abada ñu sax fee ci àjjana doojee ba faw radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla dana leen gërëm ñoom it dañ gërëm ñeen seen borom zalika alfawzu azim loolu mooy texe bi gën a mag lillahi mulku samawati wal ard ñeel ñeel ne yàlla lii di nguuru asamaani ak suuf wa ma fihin ak lépp lu nekk ci seen biir wa huwa ala kulli shayin qadir te mooy ki am kattan ci lépp lu mën a doon ñu ngi noonu mbokk gis nañu ñu ngi nekk ci jataayu yowmul xisaab suñu boroom di wax ak jaamam ba Isa ibnu Maryam daa dina ko ay Isa ndax yow yaa waxoon nit ñi ni maag sama yaay kat ay yàlla lañu na ngeen ñu jàpp def ñu yàlla mbokk question boobu bu doon adduna Isa day sëy waaye àllaaxira yeneen règle la isa bi loolu amee tiit na tiitaange boo xam ne jéggi na dayo doonte ne pourquoi yàlla di ko ko laaj mooy da ko koy laaj ngir toroxal ña nga xam ne ñoo gëmoon loolu ci kanamam su ngi mel ne rek su borom bu naan wa isal mawudatu suila bi ay zanbin qutila xale bi doo ko judd bàyyam dem suul ko yowmal qiyaama yàlla taxawal ko ci kanamu bàyyam ak kanamu yowmal xisaab yépp daa dina ko yow loo defoon ba ñu suul la ba ñu rey nga suul la xale bi lu muy wax man man de dama dund rek ñu rey ko gis ngeen isam na Mariam it loolu tax yaa dëkk posé question bi loolu amee tontu yi mu tontu ba ko doon xool mat na fukki ton mu ne ko subhaana ay yàlla sell ñeel na la te loolu rek muy saxal ne wax ji waxuma ko sell ñeel na la amoo kenn ndawle buñ ne war a jëndee ñaareel bi mu ne ko yelloo ci man may wax loo xam ni yeyoo wuma ko te mi ngi noonu yow yàlla sell ñeel na la man it yellul may wax lu ma yeyoowul te mbokk yeneen ti ñi ngi yem ci ne yéen a dem ci li yàlla bind muy yeneen ti yàlla yi waaye seen grade mi ngi yem ci nekk intermédiaire diggante nit ñeeg yàlla amaa nag ñu yëkkati leen ba leen di jaamu loolu moom yeyowu leen moo tax Isa ne yeyoowul may wax lu ma yeyoowul loolu mi ngi noonu te loolu it moo wax ci bépp jullit mbokk doomu aadama yi xamal ne daa am lu yàlla yeyoo am lu yeneen ci yàlla yeyoo am lu ab borom xam-xam yeyoo yàlla yeyoo tëral shari'aan nu ko neex ñu jaamoo ko ko yeneen ci yàlla kese yeyoo jàngale ne nii dañuy war a jaamoo yàlla borom xam-xam lu yeeyoo mooy jàngal ñu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam indi jot li ñu ko waaye sant ñu ko mu sos ak jaamu yàlla mi nga doon yellul may wax loo xam ne yeeyoowuma ko ñetteel bi mu ne koy suma borom su ma ko waxoon day xam nga ko su ma ko waxoon xam nga ko te loolu it ay ak tontu la mooy xam nga loolu su ma ko waxoon xam nga ko xam nga ko waxuma ko ñeenteel bi mu ne ko taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsi yàlla lépp lu nekk ci man xam nga ko ca man xawma dara lu nekk ci yow wala yu tudduuna bihi ilma ba ko yàlla li muy nar a def kenn xamul muy faalu li ma yurid doomu aadama yi xamul lu ñu lu leen yàlla lu dul da leen yàlla subhanahu wa taala xamal looloo tax ba mbokk kumpa mi ngi noonu benn yonent musul woote la xam na yàlla rek mooy ki xam kumpa yi ngi noonu gannaaw ba mu ne ko yow yaay ki xam lépp luy gëm ko muy am laa mën buy yow léegi nag ay sama borom man tey waxuma leen lu dul lan ma digaloon nga wax ko jàppal loolu bu baax de maa qultu lahum illa ma amartani bi lan ma digaloon rek laa wax te bokk yeneen ci yàlla mi ngi noonu adduna yëpp nangu nag ñi gën a mat ci nit ñi mooy yeneen ci yàlla yi xam na benn juif bu ci bind benn benn chrétien bu ci bind benn téere les cent personnes les plus influentes du monde ana téeméeri nit yi nga xam ne ñu xool histoire doomu aadama ñoo gën a am jeexital ci àdduna bi moom du jullit waaye Muhammad la def premier ñu ngi noonu bu dee rek ci wàllu jiite ay nit change def ay changement nekk un nit complet ci këram ba ba jiite royaume bi kenn gisul ko mel ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu taxul mbokk diine yàlla di waxu ci lenn lu dul ko yàlla waxal loolu li ñuy jàngal mooy lu sam xel rëy rëy rëy rëy rëy yëppul ci tëralal nit ñi ak jaamu yàlla jaamu yàlla moom ci yàlla rek lay bëri maa qultu lahum illa ma amartani bi te la nekkoon base ba mooy neewoon naa leen jaamu leen yàlla rab bii mooy suma borom bi seen borom yàlla nee na ko ndax yaa wax nit ñi jàpp leen ma yàlla mu ne déedéet dama doon jaamu yàlla rab bii ay mooy sama borom di seen borom te loolu te duñ di fàttali ko fu mu mën a toll yaakaar naa bi ngeen di julli léegi bi ngeen jàpp si ñu comme lu ngeen wax subhaana rabbi al azim sell ñeel na sama borom bu mag bi bi ngeen di gis seen yi du ngeen wax subhaana rabbi al ala sell ñeel na sama borom bu kay te loolu rek laa waxoon ab jaam laa sell ñeel na ki nga xam ne mooy sama borom di seen borom yéen tamit gannaaw ba mu ne fay yàlla man de ba ma fa nekkee doon naa di leen seede ba may dund moom lañ doon def xam naa ko waaye ba nga fa jëlee yow yaa leen doon fuglu te loolu it mbokk bi ngi noonu ngay gis ne ñun dañu naan wëli yu ni mu ma ne kanamam ni mu ma ne gannaawoo moo raw ni mu ma ne kanamam loolu bokk suñu livre rek suñuy léeb la yu ñuy léeb ngeen bàyyi ci xel bu baax am na inspecteur sàmp benn léeb boo xam ne léeg-léeg mu fàttali ma ko benn koo xam ne ñu ngi toog ay junni nit wër ko ci Sénégal mu ne damaa toog ak xale yi ba mu jëmale leen ne problème am nga de góor gi de gën naa koo gis góor gi moom dégg léegi léegi moo dégg mu ne daal góor gi de gën naa koo gis mais mais nee na fan yooyu rek la ma romb ci bind fii si na ma yàgg na xam boo ma def boo ma def boo ma def ndax ñu ngi wër di planète yàlla di régler problème yi loolu bokk suñu ngémte rek kii dee dee na suul nañ ko jeex na yaa ngi dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ko yàlla jëkkal yowmal qiyaama teeroo ko ak alxawd foofu nga xam ne fa la jox rendez-vous jullit ñi inna mawidahumul xawd sama daje géen mooy ci sama dégg ba am na nag ñu ne déedéet loolu amul yonent bi ñetti fan nga fi bàmmeelam génn judduwaat am fi njaboot ay sëtë ci nangam nangam waaye la ma waxoon saxaaba yi moom sama dégg ba laa leen jox rendez yonent boobu yeneen jullit ñi daan ñëw dégg ba nee na ma leen di woo ngir niñ doon jàppe kaay leen gannaaw ba malaa bi ñoo xaaj daal di puus jëme sawar mën a ah yàlla ñi sama xeet lañ bokk ndax gisoon na ci ñoom màndarga jàpp te noonu la yàlla di naxe yéeféer yi munaafiqoon yu xaadimuuna allah huwa xaadimuhum yawmal qiyaama bu ñuy dekk day boole naafiq yi yéeféer yëpp gars yi di aha suñu plan boobu réussir na te la leen yàlla doogoon ñooñu gis ngeen te xam ngeen ne mbokk li ñu xam day mooy nit ki mën ngaa julli ci jàppoo waaye ku jàpp moom da nga julli loolu kon muy wane ne ñu daawul julli moom kenn waxul seen biir léegi nee na ma ne ñii sama xeet lañ bokk malaaka yi dama ay muhammad ñii xamoo li ñu sos sa gannaaw lan fa defoon yëpp soppi nañ ko nee na ma ne leen kon day suxkan suxkan nañ ma sori nañ ma sori gis ngeen loolee kon bokk mi ngi noonu mooy man day nekkoon naa di aji seede fii ak maa ngi nekk ci ñoom ba nga ma faatee yow yaa ka nga xam ne nii yaayi ka doon réglé seen biir ñu ngi noonu borom bi subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ni ay yow borom bi yaay seet lépp su dee nag ñii da nga leen a woo da nga leen a jël ñoom ñëpp mbugal leen say jaam lañu naam boo leen mbugalee say jaam lañu waaye mbokk ndax yàlla dana mbugal ak jaam rek ngir ab jaa sa jaam la mu mbugal ko laa wa maa rabbuka bi zallamin lil abid yàlla ku mbugal rek daa fekk da ngaa yooyu mbugal ah yàlla man day xóomatul seen mbir ndax say jaam dañu daal boo leen mbugalee say jaam lañu su dee ne it da nga leen jéggal yàlla yaay al aziz jéggaloo leen ci tëre da nga leen jéggal ci sa yërmaande ah xam nga doomu aadama bi nit ki mën na koo tëddal ko bàyyi naa la ak yàlla fekk daa amul pexe amma yow yàlla yaay al aziz boo ci jéggal xam nga noo koy mbugale da nga koo jéggal ci sa yërmaande yaay al hakim te mbokk suñu borom mooy yaay al hakim kattanam googu du ko teg lu dul fa mu war a tegee mooy alxakim ni mu tërale ne jaamoo leen ni yàlla loolu rek mooy lu jub comme ni nga xamee ni ni ak bindam loolu rek mooy lu jub kenn du xool bindu bi yàlla ne su gënoon nii lay gën a baax commencé ci yow di xool sa bopp ana ban révision nga mën a def sa bopp ba mën a baax say loxo bu nekkul woon fii fu muy nekk bët yi bu nekkul woon fii fu muy nekk bopp bi bu nekkul woon fii fu muy nekk naka noonu yéen ay atteem ak i tëralin noonu la nekk alxakim jàll wa ala borom boobu nag daa dina ah gis ngeen tamit suñu borom question bu gàtt rek la posé Isa ibn Maryam ndax yaa waxoon nit ñi ñu jàpp ne yaa seede fi yàlla waaye xool discours clémétrique bi yëpp Isa topp ngir tiitaange gis ngeen suñu borom nag ne tey day mooy bis boo xam ne ñu dëggu woon seen dëggu ba la leen di jëriñ tey mooy bis ñi nga xam ne dañoo dëggu woon seen dëgg ba da leen di jëriñ mbokk ñan ñoo ñuy dëggu suñu borom mu ne laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin albirra ila axiri waaw walakin albirra ila axiri alaya suñu borom mu ne xam leen na mbaax dëgg nekkul ci ne da ngay jublu penk wala sow waaye bala ngaa baax da ngay gëm yàlla ak i malaakaam ak i téeréem gëm yowmal qiyaama la la yàlla wërsëgal ci alal nga génne ca zakkaat taxawul julli daal di def njëkk ca jegeñaale ya ak miskin yi ak ibnu sabil daal di muñ natt yi nga xam ne yàlla dana dana ko teg suñu borom mu ne ulaika alladina sadaqu ñii ñooy ña nga xam ne ñooy nit dëkk suñu borom nag nee na ñooñu ñooy mucc yomal qiyaama loolu moo tax ba góor góorlu sa kemtalal kattan bokk ci ñi dëggu ni yonent bi aleyhi salaam ne aleykum bi sidq fa inna sidq yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna dee leen góorgóorlu di dëggu ci seen i wax di dëggu ci seen i jëf day tax ngeen baax te mbaax mooy yóbbu nit ki aljanna sunu borom mu ne dañ leen dugal aljanna yoo xam ne dana daw ci suufam la nga xam ne mooy dex ya ñu daal di fay sax ba foofu aljanna bokk ci gàttal jàppal mooy lan mooy loo xam ni bët musul gis lu mel ne moom yéen ñi seetaan internet ay Hollywood ay partout partout lu mel ne ak déedéet nit mu mus koo gis nit musul dégg lu mel ne moom nit mu doon imaginer lu mel ne ak janna loo ci xalaat xalaat it mënoo fexe ba imaginer lu mel ne ak janna suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne suñu fa duggee duñ fa génn ba faw duñ fa génn ba faw suñu borom yàlla gërëm leen te ngërmaande yàlla boobu moo dàq aljanna yonent bi aleyhi salaam nee na yàlla dana woowa aljanna ak woowa aljanna ndax gërëm ngeen kontaan ngeen na ko ana tey yaa ñu jox loo xam ne mosuñu ko xalaat mu ne ah man de bëggoon naa leen a dolli ah suñu borom loo ñu dolli ci lii mu ne gis nga ci tey gërëm naa leen lu leen neex def leen du ngeen def neex na ma gars yi loolu dàq aljanna ni noonu ñun àjjana amul luy hésité naan ndax li neex na yàlla am neexul yàlla loo def rek neex na yàlla gis nga radiyallahu anhu ñoom it radu anhu amul lenn lu ñuy yëg loo xam ne dañuy jàpp ne lii suñu sañoon mu changé feebar amatul ñàkk amatul xiif amatul dee amatul jaaxle amatul xuloo amatul doo dégg lu lu dul lu neex doo gis lu dul lu neex xaalidina fiiha abadan yàlla na ko yàggal suñu wàccuwaay gis ngeen borom bi mu ne lii mooy taxe bi gën a mag yow ndaw bi yëpp yóbbaale loolu yaa ngi dem ci projet étude projet dajale xaalis projet xëy na ay politique bëgg nangam waaye yooyu ak na neexoon mu nekk mooy pour kexe bu màgg ba kexe bu màgg ba mooy ak janna de lépp lu la xañ ak janna perte nga àdduna perte nga àllaaxira su ko defee pexe bi gën a mag mooy nga góorgóorlu sa gërëmal borom bu dugg la nga xam ne mooy biri ak janna borom bi nag tëje saaru mag wi ci suratul maida mu ne xam leen ne ñeel na yàlla nguuru asamaan yi ak suuf ñépp moo leen moom moom moom li ci fi diggante bi malaaka yi moo leen moom moom moom nit ñi ak jinne yi ñi ci des ñépp képp ku ci nekk rek na xam ni jaamu kese nga mën a doon te moo ke- mooy am kàttan bi lépp lu mu mën a doon looloo tax yonent bi alayhi salaam daan ñu wax ni kenn kenn bu xëyee day wax raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya